Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yonent bi salaa sallam dafa wax ne képp ku julli jullik farata ba noppi nga tek ci ben ayatul kursi nga sahal ko bagn ko bayyi de rek mo la te tàbbi aljanna kon yow mbok yow mi deg ayatul kursi njariñ li ëpp na loolu lim am ci njariñ ken xamul lu tol muslay la lepp la mom ayatul kursi kon yow mi deg ayatul kursi nga xamna ñaan gu ne lu ci dan bëri dang ko ci boole maa ngi la koy jangal fi bo jëlee sa bik nga bind ko nga top ci rek def ko comme ni nga def sa métier mi inshallah allah ko man sa bo jullee tee julik farata ba nopi rek nga tari yonent bi na rek mo la tee tabbi aljanna da ngay wax bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa huwa al alxayyu القيوم لا تغصه لا تغصه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي من ذا الذي يشفع يصفع عنده عنده إلا بإثنه إلا بإثنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما حفظهما وهو العلي alaasim sadaqallaahu alaasim lool mooy ayatul kursi boo fexee ba man ko nga saaboo boo jullee suba wax ko tisbaar kazalika ba julli juróomi jeex saaboo boo jullee nga teg ci benn ayatul kursi nee na ndey dee rek moo tee tàbbi aljanna nga fexe yaatal vidéo bi seen bokk taalibal maam laam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala